asalaamaaleykum luy xew TV ku nekk maa ngi leen nuyu sa tur ak sant Mahamad a ah, Jordan mu nga gisee nii moom kontaan ma ne am naa yaakaar ci Dior ak Madior dinañ delluwaat naar moom mooy perte perte ak ay yaama yaama daal gëm naa ne moom dana dana dana perte te gëm naa ne tamit joor ak kee duñ mun sëy parce que ay maga rakk lañ ay maga rakk loolu daal mu nekk suma wax ci lu xew TV ok merci bonne nuit waaw man la Amina dama bëggoon participer ci Madior ak Dior vraiment nekk na série bi nga xamante ne neex na torop te jàpp naa ne instant bi Sénégal ñu bëri ñu ngi koy suivre même bu dul Sénégal sax mën naa ne ñëpp ñu ngi koy suivre vraiment nekk na théâtre bi nga xamante ne neex na torop ba pare li ñuy joué moo am ci dëkk bi waaw naar jub moom li muy def ci lu bon noonu di ko joué noonu dafa am lool moo tax ñu di ko joué pour ñi nga xamante ne ñu ngi koy def ñu arrêté di ko def ñi nga xamante ne defuñu ko ñu bañ ko def waaw mais yaa yaamoo tamit waroon na xam que ne moom Madior tôt tard dina ko bàyyi ndax Madior mësu ko bëgg Madior bëgg ko moom Dior la bëgg xam nga mais tamit quant à tamit joor nekkoon di feebar yooyu xam nga nekkoon ci problème bi mu dofee ak yooyu xam nga waru woon nekk di dem di am ay relation ak yeneen jigéen comme genre euh, journaliste boobu nga xamante ne mu ngi doon nekk ak moom ba keroog mu woo ko naankaan ay suñu diggante na fi yam xam nga waru woon doxalee noonu quoi pour man ba pare mu woo ko nankan sama diggante sama diggante ak yow na fi yem xam nga mi ngi indilaatal boppam beneen problème waa Kanta nag moom man bu ma doon may moom su ma señoon du ma sa delluwaat ak maajoor dafay dem toog foofu ci Maysa Maysa bëgg na ko soutenir na ko ay parents wu Maysa bëgg nañ ko en même temps moom ak Maysa ay mbokk lañ man daal bu ma doon may moom mu toog foofu noonu ci Maysa man moom ma gënaloon muy delluwaat ci Madior di amaat foofu noonu ay problème waaw kantaan Naar Diop nag jël na valisam ba daw mais teewul tamit dinañ ko jàpp waaw ndax lu bon li mu li mu def yëpp. mënul nil noonu quoi il faut mu mu mu mu mu mu li mu doon def si lu bon yëpp daal il faut ñu won ko ko quoi waaw mu xam ne lii daal mooy lool merci beaucoup lii rek laa amoon lu may wax ci Madior Dior kontaan naa trop vraiment série bi neex na trop. asalaamaaleykum waa Lu Xew TV na ngeen def nag mbaayaan ci jàmm naka mu yàlla noos man daal lu ma gis ci théâtre Dior ak Madior man de lu ma bëgg moo nekk. maajoor ak joor ñi dellu parce que yaama parce que naat jóob ak yaay yaay joor ak yaay may sax dañ ñoo bokk looloo tax waaye man lu ma bëgg lu ma bëgg daal moo nekk joor ak maajoor ñu dellu te yaama est-ce que ëmb na sax parce que dafa mel ni ëmbul de man de laa gis waaye waa ziar naa leen waa siri maa joor ak joor man moo kenn yéemu ma naar moo ma yéem nit ku du changé du soppeeku mu ko tamit naar naar naar man yéem na ma de mais kenn du sama fans bi tamit ah euh, nu ko si waxtee sax joor joor gëj na yëngal man yëngalu joor laa gëj a gis tamit si àddina ah joor ah tamit ñëwal ba <laughs> waa salaamaaleykum na ngeen def waa DTV bàyyi nañ si jàmm bu baax waa maa ñëwaat waxaat ci Seri Madior ak Dior man li ma gis ci joor ci ni muy doxalee nii ak Maïssa Penda Dior non c'est pas normal parce que bi mettee moom la gis kon du yoon muy tontanteeg moom yenn kàddu yi ci yoon dafa waroon toog mu waxtaan ak moom ba xelam dellusi waaw bu ko defee Maïssa Penda Diop dina comprendre joor xam ni kat lii mu dund metti na parce que dafa war fàttali ko tamit ban àndi resto mu waxtaan ak moom wax ko bill privé am yépp loolu la war a calculer mais bu mu calculer ne kii ñëw na rek dafa war a jël lépp xëpp ko ci joor yaakaar ne joor moo ko tettar kër gi te joor de moom bëggu woon sax maajoor xam fi mu nekk ak famille maajoor xanaa kay daa nekk lu war a am rek mais tamit secrétaire bi tamit war na kee Maître na ko parce que xamul woon ni moom bu ko waxee li nekk ci joor li bëgg ci joor xamul ni dina tëtal maajoor ci kër gi film bi daal mi ngi nii daal film bi daal mi ngi nii mais moom naar jóob defet yi muy commencé am man neex na ma na continuer nii dam defet rek na continuer di am defet maa joor ak joor daal bu mu jeex bu mu mas a jeex bàyyi leen maa joor ak joor bàyyi leen maa joor ak joor maa joor ak joor dëkk jox leen ko joor waaw joor maa la moom parce que moom la ñu commencé joor maa dafa ànd ak sax santi dikkaale lépp a neex waaw léegi kay dèjà di war a pontaan si mbir mi sax si mi sax neex na ma trop waaw ah, affaire bi fu mu fulle ah naar Diop de moom niil na moom ndaw na ndaw res de ah dafa doon xeex rek na saf mondial rek ah na joxe na na na ko jëfe ah fen moom amul fen fen fen boo waxee da ngay fen fen fen fen yàlla du ci ànd keneen du ci ànd ak keneen ak keneen kenn du ci ànd waaw la fay demee salaamaaleykum wàllu xew tv waa man de li ma gis nii moom joor day sonal boppam ci Maysa rek mais yàgg yàgg ci Madior lay mujj parce que moom la bëgg ba tey bu ngeen seetloo bi waxtaan ak xaritam bi am na ay sentiment ba tey ci Madior Maysa moom day sonal boppam rek waroon na ko mën a bàyyi sax nag mu dugg ndax bu duggoon tamit mënoon nañ koo gën a rafetal mais lu mu yàgg yàgg rek joor moom dina mujj ci Madior ah moom day sonal boppam rek moom mu def la tout. teel a génn ci sëy bi bu dul loolu moom bakkanam mun na cee parce que maajoor mi ma gis moom li ma gis ni daal dina dina gën a continuer daal di def enquête bi tax gëm naa ne bu ci amee lu ko leer moom li papam di bañ dina am ndax dina leen tëj kaso. asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di siyaar bu baax di leen gërëm di leen wax ne ñu leen suivre tout le temps ñu kontaan si liggéey bi lool am na solo am na solo waaye tamit am na ñoo xam ne nuñ ko gisee est ce que bu demoon noonu du ñaaw quoi waaw ndax ke ñun ñaar ñëpp ay jabaram lañ donc léegi euh, maanaam bu défendrul jooro hmm, te kee kee dafa ëmb léegi amoon na nu mu doon demee ke dafay maanaam dafay mer ba def loo xamante ne ni day yàq biir bi maanaam tamit ma doon laaj la est-ce woon ne loolu moo taxoon joor di ko eh, maanaam mama joor di ko défendre quoi te bu bu bu défendre woon est-ce que kay du mer ba di dem bay yàq biir bi quoi foofu laa doon waxee man kontaan nañ nag si kii bi ñu ngi leen di suivre tout le temps dëgg neex na trop man daal man daal neex na ko <laughs> nan lay demee. salaamaaleykum Lu Xew TV maa ngi leen di jaamale di ziare di jox seen wàccuwaay bi baax baax waaye di wax si série Jool ak Maa Jool rek dañ koy suivre suñu la neex na trop wax dëgg fa yàlla waaye tey moom pour man. desinuma d'accord fenn parce que yaa ma fekk pour man waruñu ko mën a jàpp daal man ndax moom pour man bunut génn bon gi parce que maanaam xaj na bu doon na defi bi mais lu sëpp boo xoole yaayam naa fekk moo moo ko moo si bon gi waaye ko moom baax na jàpp naa man pour man daal da kurma pour ñu tëj ko naar ju doon war a tëj ak band yooyu noonu damm caar ji sa kosoba sax bu ko aajee parce que ñooñu dañoo bon ñu bon lan sax parce que surtout bande boobu tëdd woon bàyyi yaama bi nga xam ki tëdd woon joor kooku mu wut a eh, génn aussi joor tam moom pour man wut dem ànd ak eh, may sax pour man maa joor lool a dem ànd laat. macha allah sëñ maa joor neex na trop trop trop trop sax naar daawam yi kay dootu ko defal ci àddina bi mu réew moom naar yéex na la jàpp nag doo nekk si dëkk bi di def say tujaange ñu ne da ngay daaw tamit ok brigade bi daal kontaan naa si ñoom tamit mhm, te sentir naa joor tamit ok def na ay yaa ma gën a noo daal ok dootu ko defati neex na daal macha allah. asalaamaaleykum na ngeen def mbaa yéen ci jàmm alhamdulilah yéen waa euh, lu xew TV maa ngi leen siyaat bu wér wér wér maa ngi woote Tambacounda si théâtre ak Dior ak ma Dior macha allah macha allah kontaan te mbégte. ak yeti bu rëy moo ci ne waaw comme naar Jóob lu may dund nii bari na ci Sénégal gi fu mu toll nii waaye nit ku bone nii waaye am naa yaakaar ne du la jik doo gudd par genre nit yi mel nii du ma leen ne amul de mais am na mais ku ko ci mel ñaaral doo gudd fan parce que doo texe lammiñ moom kuñ ne jàkk rek cet moom macha allah cet moom kuñ ne cëpp rek doo gudd fan gudd fan naar moom ak doomam nañ mel maar de yem maar de yem rër yi par genre rër yi moom jarul nit di ko jël quoi parce que day tax nit ñi lay seetaan soupçonné la boo comporté woo noonu sax ci théâtre bi day tax nit ñi soupçonné la quoi ku la ci soppoon wala ku la ci bëggoon day tax jëfin yi ngay jëf ci euh, kii bi ci géri bi rek day tax ñu jéppi la kon nag booy jël rôle jëlal rôle bu baax lii moom nit ku ko mel ku ne doo sant yàlla moom waaw duma la ne amul de mais ku ko mel ñaareel balaa la wax doo gudd fan doo toog ba nga ne alhamdulilah kon nag nit ki moom boo nekk ci àdduna waxoo alhamdulilah dee moo ko gën quoi waaw kon nag maa ngi leen di ñaanal ci kaw ci kanam ngeen yokk ba yëg ko rek kenta ngërëm ñeel na leen maa ngi wootee Tambacounda merci beaucoup salaamaaleykum wa Lu Xew TV leen di ziarati ah macha allah seen théâtre bi am na solo ma joor ah ma de fi nii ah jaaxle na de waaye joor moom ku ne xam na ne maa joor lay mujjee ndax wax dëgg yàlla maa joor lu ne daj na ko ci joor may sa nag moom nag bu bu mu xalaat sens sax nag nga xam na ni moom maa joor moom ah bokk nañu de maa joor daal laa moom laa bëgg mu toogee mais xam ni moom joor mooy mooy mooy mooy jabaram kanta borom ci baaraam boobu moom ku ne ku ne sa añ dina ñëw ëllëg moom jikkoom moom lañ ko añale noonu boog yaayam jooju noonu borom camion boobu moom di lox loxal moom waaye yàlla ji tey ji macha allah yàlla tey ji day defante ci kaw ku ci kaw suuf de mooy jëf ju bon ju ñuy def xamoon nañu seen bés dana ñëw. tey seen añ a ngi noonu ñu taajal leen. salaamaaleykum Lu Xew TV mën naa euh, suma waxtaan daal si épisode bi muy passé moo nekk lenn maa joor daal dafa war a naxante ak joor ba am ko wante Maysa Maysa moom mm, teeyut ku ëppal la ku ku ëpp la te xamut wax noo tëb tëb tëb rek ñëw rek nag diw génn sama kër saytaane bu bon nga balaa nga wax parce joor xamagul ndax joor bëgg na ko la bëgg ko war na toog mu mu toog mu patiente xalaat naxante joor ba am joor joor sans problème xam na ne joor bëggut ko Dior Madior la bëgg nekk ci xolam moom rek la tey tey wante kii ni daal dundu tubaab lay dundu kii ni may sax dundu tubaab lay lay dundu wante daal na naxantee moom rek loolu nekkoon sama wax tey lu xew TV asalaamaaleykum waa groupe bi maa leen di nuyu ku nekk turam ak santam di leen bëgg di leen jox seen wàccuwaay weer weer di wax ah film bi moom macha allah neex na trop mais des fois moom daf lay xaw a jaxase si benn côté parce que man xaw ma ñoom ñetti cheikh lañu wala ñeent lañ ndax yaayoo Madior ak joor si seex yi la bokk walla moom bokk ci wala Naar Diop ak yeneen ñaari cheikh yi kenn ki gaañu ki ak fii joor dem. ndax ñoom ñetti ñooñ ñooy seex yi wala maajoor yaayam daf ci bokk nu mu demee noonu laa bëgg ñu leeralal moo ko parce que affaire bi man tamit daf maa xaw a jaaxal ci benn côté parce que yaayu Mariama fee dafa ñëwaat rek dawor double rôle double rôle la la joué waat foofu noonu mais mënoon ñu leeralal comme ça yaayu maajoor moom seex yi si seex yi la bokk o déedéet loolu daal bëggoon naa leerlu ci loolu bu baax baax salaamaaleykum waa Lu Xew TV namm naa leen bàyyi nañ ci jàmm waaye li neexul <laughs> jàpp na njaama jàpp yaayam jàpp xabs maa ngi soog kontaan nag théâtre baa ngi soog a neex am bës waaye nag joor ku ne xam nañu tubaab du moroomu naar yàgg maa joora yi mu dee may sa moom ku doon may moom damay daw teg sama secrétaire daal di fas yéene lonkoo ak moom ndax maman Banel léegi moo xam ne ñoom ñaar ay doomu nday lañ maa joor a gën a taxaw pour mën a séeréer jox ay yi Pape moom dama ko yërëm